yaatoo far sax tat boobu tatib wurus la daanañ ko defaral defaral ab minbar boo xamante ne minbaru wurus lay doon ci digg tati boobu bu toogee ci kaw minbar boobu ñetti junni feer si wurus danañ ko wër ak xaalis bu ko defee ambiya yi toog ci toog ci feer si wurus boroom xam-xam yi dul ay yonant toog ci seesi xaalis yi nit ñi wër leen buñ leen wëree ba daj kap jinne yi door a wëraat nit ñi ak seytaan yi bu ko defee picc yi kenn ku ci ne da ngay indi mel mu ci ne am na foo war taxaw firi say laaf tiim leen ngir jant bi mën a bañ a àgg ñoom nguur gi noonu la ko yàlla tàggatale woon mu wax ni ci euh, ci bir eh, eh, mu bo boobu ci bir soldaar yi ñu and di dox ben bis ñu ànd di dox tak bis yàlla wax yu ko te booba mu ngi war ci ngelaw li nekk ci ak suuf ne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 udkhulu masakinakum la yahtimannakum sulaymanu wa junuduhu wa hum la yash'urun ben xorandom buy wax ni yeen xorandom yi dugulen ci seeni keur bala leen mo xagne yeen ak sulayman ak soldaram bala ñu mo xagne ta duñu yek tax ni mo xagne nañ leen Sulaiman dégg waxe bobu dal bi muñ ngir yemu mu yemu bi lolé ko yalla may dapé tak ni rabbi awsi'ni an ashkura ni'mataka allati anhamta alayya wa ala walidayya yalla yalla nak ma may xewal gi nga ma xewale ma sant lako xewal gi nga ma xewale maak sama ñaari wujur yal nañ ma mëna may ma sant la waaye lool rek ci des wax nañ ni benn bisit toog na ba mu am picc sab ne xam ngeen picc moom yi li mu waxa ah? ñu ne ko déedéet mu ne dafa wax ni jur leen ngir dee tabax leen ngiruk ràpp lu ngeen mën di jurit bi la ngeen di jurit ci dee la li ngeen di tabaxit ci ak rek la jëm loolu la picc mi wax benn bis mu toog am lu sab meneen picc mu sab ni ndax xam ngeen ni mu wax ñu ne ko déedéet mu gën dafa wax ni aka neexoon mbindeef yi fu leen ndax li ñu nekk ci ak moyaan benn bis am picc sab mu wax ni sab picc mii di sab xam ngeen lu mu wax ñu ne ko déedéet mu wax ni dafa wax ni yow doomu aadama de ñu nga diine woo rek noonu lañu lay faye loo jëf rek moom lañ lay fay benn bis picc mi ñuy wax hud hud tab te mooy Moussa mu wax ni xam ngeen lu picc mi waxe ñu ni ko déedéet muy dafa wax ni man laa yar xam laa yar xam ku dul yërëme deefu la yërëm meneen picc sab mu leen xam ngeen lu mu waxa ñu ni ko déedéet mu ni dafa wax ni jéggilu leen yàlla yéen way bokkaale yi yéen way tooñ yi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 ñu ne ko dedet mo ne dafa wax ne kara ñel na ko xamni aduna àdduna képpay sa itte ñu musni lo lay loolu mot ngo mbott mu ne xam ne li mu ñu ne ko dedet ni ne day wax ne subhan rabbiyal qudus tudd naa sama borom mi aji sellal loli bokku na ci xibar yi xibar nah, fi xollim man taqat tayri joji yalla nettali ci alquran wax ne sulayman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 di wax ni yow yalla non day ay mbindeef lañu gis aw xorandom xorandom woo wax ni yalla non day ay mbindeef lañu bok ci seen mbindeef tay duñ am mukk wenn wërsëg wudul sa wërsëg kon yàlla boo nu bakari do ma dama yi yalla na nga nu mandal neena na bi mu waxee loolu Suleymaan daal di wax ñi ko war ñu leen delu leen ndax mandal nañ leen ci ñaanuk ñeneen ñu dul yéen ñaanuk xorandom wowi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 ñi cong mu teng ak gi jàpp gu tar moom lan la danaa xamu ni man mi jaamub jaamub yàlla mi ngay jaamu laa man jaamu bu jigéen la bi mu ko waxee loolu Suleymaan daal di xam bam xamuli ko ni andil leen ma xorondoom wa ñu andi xorondoom wa Suleymaan laaj ko soo xorondoom wi ni ko sama derdi lu woyof lah sama yaram wi du teeti eh, farandoo wi ni ko sama lu woyof lah sama yaram wi du doyadi la nga jàpp ma sànni ma Sulaiman daal di ko di jël waaye ci sàpp nga bañ a xoole àdduna xoolinu cofeel ta nah, bañ see soobu ci say bànneex ak ci say ré boy reeti it nga baña ré ba kekku ta sa daraja ji nga bañ ko wona ci kenn nga bañatee won kenn daraja ji nga am Suleymaan ni ko def na loolu yi parandoom wi ni ko kon jéggal na la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 tam na ne ko déedéet wax dëgg xawma fu mu dem de da yoni wu mako fenn yi suleyman daldi di mer lool daal ni la bannahu azaban shadidan dana ko mbugal mbugal mu tar aw la asbahannahu wala ma rendi ko aw la ya yanni bi sultani mubin wala mu andil malay lay bu wér dana ko mbugal ba ma ray ko ba mu andil malay lay bu wér wér suleyman waxe loli daldi wo lu ëpp ci moom xam-xam dañoo wax ni dafa woo mel ni picc picc moom mooy baaxañ moom la daan yónni mu dem ci gën a ci jaww ji am xoob am xoob la woo te moo daan dem ba nekk diggante asamaan ak suuf di mën xool ci àddina bi di gis lépp ci ab gisam bu yaatu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 daal di dem ci Souleymane biñ demee ñu ngi ko fekk mu toog ca sees ba mu daan toog di àtte nee na xob mi daal di wax yonent si yàlla ni ko andil naa la hudhud mi ngi nii ba hudhud demee ba jege Souleymane dafa yóoral bopp bi mu jëm suuf mu wàcce ay laafam ñuy diriku ci suuf si ngir torox lugum torox loolu Souleymane Souleymane taalal ab loxoom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 fekk naa fa jigéen mu yëlif leen te am na lu ne jigéen ji mi ngi tudd balxiis bintul bashrax bashrax moom mooy kañ daan wax alhazhaz wax na ni balxiis aw turam mooy balamatu bintu sharaxil nattabli yooyu moo ci am ibnu jadan ibnu al bashrax ibnu al hars ibnu qays ibnu sanaa ibnu yasjuba ibnu yaruba ibnu qahtaan wax nañ ne bàyyu balkhis di bur boobu dafa doon ab bu al bashra ñu di ko dàkkentale al hazhaz mu doon buur bu mag suufu si yaman cep moko ko moomoon da daan wax buur yi nga xamante ni ñoo jamonoon seeg moom te dend ak moom bokk ak moom ay frontière ne leen kenn ci yéen du samab nawle ba tax duma ci jël doomi kenn ci jamono wax nañ ni jinne yi daanañ gisee ak nit ñi kiiraay di am ci seen diggante amu ci woon ba dafa mujj denc soxna jinne su tudd Rayhaana bintu Sukri am ca benn doom bu tudd Balama te mooy Balqiis waaye nag amuñ benn doom bu dul Balqiis boobu ñu ne lii dëggal lii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 bo boba ñu fasal ma la ma doon sa soxla waji ji dajale encadrement yi gouvernement barkis bepp wax len ko ñu ne ko japp nañ ne bur bi de du nangu barkis do da ko ci ngay sey ak mom waji ni len mom ci bopam mo sakku ci man ma ma ci ko lima bëgg dal moy ngeen jappale ma ci ma bobu dem ci balkhis wax ko loli bur bi wax balkhis ni len waw ndax dama bëgg dom ndax dir sangam a ngi nii bu yag ngi ni may dund ci àddina ta uma doom ta dom la sop motax ma bëgg waji denc na ñu daal d'accord ak mom ci lolu dal koy fas dal koy togg jox ko waji ngi and ak ñu bari di muy sey ci ay surgam ak ay encadrement gouvernement bi ba kër yépp fess del waye bi nga xamantene balkhis ñew na ba wéte ak waji moy bur bobu daf ko jox sangara mu naan ba ba mandi bi mandé mu dag ba ba mom balkhis dakite ho oh, mbëggeel gim feñal gep ay wor la la lal ci suuf daf ko bëggon wor dafa nandal bur bi ba mandi dal ni di ne xëndëng di nelaw mu dag ba ba dal di wëlbati ci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 ñu ne ko yàlla mi ci kaw asmaan lañ daan jàmm mun leen yàlla moom fu mu nekk ñu ne ko mi ngi kaw asmaan waaye ab xam-xamam mi ngi kaw suuf mun leen nan laa koy jaamoo te gisuma ko ni leen lu ma gisul mënuma ko jaamu te kaw suuf gisuma fi lenn lu gën a tar leeru jant bi kon jant bi laay def mu doon sama yàlla ma di ko jaamu daa di continuer di jaamu jant bi saa buy fenk ñu sujjóot saa buy soñu sujjóot mu yóbbaale ci booleem nitam ñim àndal nguuram yépp mu digal leen ñuy jaamu jant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 te wan leen ginnaaw xaar tuuti déglu leen baxam xam lu ñuy tontu dal di bind leetar ba muy bismillahi irrahmani irrahim allaa taalu alayya wa tuuni muslimin ginnaaw bu mu tuddee yàlla lam ca teg mooy bu leen ma jéem kawe na ngeen ñëw jébbalu si wax nañu Souleymane lettre bi ni ko yàlla waxee dolliwu ci dara ndax lolu moy mbir yonent ñep dañ daan bind bind mu gatt te jotal matale lañ bëgg lepp waye daawuñ bind lettre yu gudd wax nañ bi bindé lettre bi daf ko kaste da ci tampom tampon moy jaaro bam daan sol mom lay dóor def ko ci tampon bañ moko bind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 fekk ko muy nelaw jaaxaan ca kaw lal ba mu ñëw sànnil ko lettre bi ci kaw danam loolu ku ñuy wax xataada ak mu xaatil noonu lañ ko nettalee wax nañ ni picc mi mi ngi yoroon mi bi mi ko mi ko mi ngi ci aw sàllam naaw ak moom bi mu demee ba tiim ko wërna fa di rafrafi waktu na fi lu mat lu mat waxtu nit ñi di xol ba jigen bi yëkëti bopam teen mu wàcci lettre bi mu ra kaw li am na ñoo non lañ ko mu dal di jang lettre bi gis ci tampon Suleiman gis wax jooji mu daal xamni ne ki yoni janaw di kat moko ko ak ngor ndax bépp buur bo xamanteni ni ay ndawam ay janaw lañuy dondi kok di maga mag a mag la daal di lettre bi jàng picc di bañ leena jégué dem ando mu bañ jang lettre bi mu ñëwaat ba jégué leen picc daldi di ñëwaat ba ba tong ci kaw lalu balxiis balxiis daal di toog dajale mbooloo mépp jàng leetar bi ñu dégg ñam daan dajale bu ñuy encadrement yi mat nañ fukki junni ak ñaar te wax nañ ni fukki junni ak ñaar yooyu kenn ku ci ne am nga téeméeri junni soldaar yi topp ci sa gannaaw te bu ma sànni wax ak ñoom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 mooy duma def mel mbir te du da ngeen koo teewe fekke ko yéen ñëpp ñu maase ni ko ñun day nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidan ñun day boroomi kàttan lañ boroom aw ay wu tar lañ daal koy delloowaat mbir mi nag ne ko waaye nag wal amru ilayki fanduri maa ta'murin waaye nag mbir mépp ngi ci sa loxo loo ci digle rek danañ ko def bi Balxiis xoolee ba gis ni ànd nañoo ak moom ci delloowaat xalaat bépp ci loxoom joxaat nañ ko seeni bopp xalaat bam ci joxe moom mooy ni innal muluka ida daxalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan wa kadhalika yaf'alun buur day dëkk buñ dugg dañ ko yàq ña fa gënoon a tedd it dañ leen di def ñu gën faa torax ndax mbir mi ñu mën koo téye bu dëgër a dëgër ndax buñ fekkee ña fa gënoon a tedd ñu toraxal leen በሚል ምንድን ደጋስ ቺሰን ለሃ ولليل إمام جنيد لفوي إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أكنافهم ظلوا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 wastasqaluuka kama yastasqilul kallu kama yustasqalul kallu mu ne ko boo leen taggee tagg woowu ñu joxe ko ni ay war la jàppee la ku diis comme ni nga xamante noon dañuy sakoo diis loo aw gangal moom junay di mu tag ne fastaxni billahi xan abwaabihim karaman kon na nga doyloo yàlla bàyyi fi bunti buuri ndax ngir tedd ndax innal waqufa ala abwabihim dullu ndax wax na nañu taxaw ci bunti buri kat toroxtaane rek lay jural nit ki yàlla continuer di net li ci xisab balxiis ak lam ca tontu nit ña dañoo wax ne daf leen a dajale andi ci ab xalaatam ne dina seet ba xam ak ab yonent la wala buru àddina rek la ndax ñun de yàlla may nañu doole waaye bu dee yonent la cay mooy ñu dem jëbbulu ji ànd ak moom ndax kooku yàllaa ko dëgëral bu fekkee buru àddina dong la nag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 def ko ci ay walis yoo xam ne walis diwa bi la bi nga xamante ni yóbbu nañ sëf boobu ci Suleymaan Suleymaan digleen nañ ko ubbi bañ ko ubbee muy lool yi mu digleen ni yóbbu leen ko ca yoon wa tasaare ko ci yoon yépp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 yàlla li ma may moo gën lim leen may kon delloo ko waaye dinaa leen indil soldaar yoo xam ne duñ xam fu leen di bàyyi ko léegi ndaw li daal di wëlbatikuwaat delluwaat ca balxiis bi ndawi balxiis delluwaatee ca balxiis jóge ca Suleymaan xibaar ko li xew balxiis dafa giñ ni ki de du bour giñ nan ki du bour tay it xamna ne amuñ ci mom katan dal di gaaw yone ci sulayman ne ko dina ñew set ci la andak ñi nga xamanteni ne sama encadrement buma ma sa mbir ak li nga nuy wo ci diina ji nga nuy wo jëme buma doye dina dinaa jébbalu di digle ñu lem lal bam mu daan toog moom Balxiis sees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 watul len ma sama sama bagage bop yi ak sama sesu ngor gi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen ko wat bu baax fexe leen bu bu ci kenn ag bu ko kenn gis ba bu may wat dal digle ben way bu wër ci bir ngor gi di woote di digle ni balkis neena ngeen ñew ndax dafa am tukki bu muy bëgg def Di xamanteni mbolo nepp ci lañ di mbolo nepp dajé mu dal di jog ñepp war ñu jëm ci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 do ko ñëmé jëk wax dara ngir raglu gu nekk ci mom bala nga ko bala bala nga wax ak moom dal mom moy ki jëk laaj bi bu tambali wax ji rek do ko ñëmé jëk tambali ngir tay ba gu nekkon ci mom bis mu genn tok ci ses bi mom Sulaiman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 gestu mbooloo mi jàkkaarloo loon ni leen ayyukum yatini bi arshiha xabla an yatuni muslimin kan ci yéen moo mën a andil sees ba mu daan toog ngu seesu uh, lal nguuram googee dikk muy agsi